salaamaaleykum chers internautes ñu ngi toujours fii ci Galsen Hip Hop Awards donc euh, Amira ñu ngi lay nuy bu baax. maa ngi leen di fay. ñu ngi gisee Galsen Hip Hop Awards huitième édition bi. bah c'était bien c'était très bien euh, loolu laa a wax c'était un très bel événement une très belle soirée. Mhm. ñu di gis tey yow yaa tijji événement bi. donc ni nga ko tijjee inspira inspiration bi fan la jógee nga def ay cover chanson yoo xam ne ne tey yu yàgg la mais yoo xam ne gars yi bu ñu ko dégloo rek da leen di yóbbu fu sori donc inspiration bi fan la jógee. bon ku ma xam-xam ni que j'ai commencé ma carrière avec la reprise d'un morceau qui date de très longtemps et quand on a décidé que man may def opening bi. dama xalaat ni que man ak sama équipe dañoo xalaat ni que ce serait bien de prendre de faire un medley de plusieurs morceaux qui ont marqué la musique sénégalaise et je pense que ça a eu un petit impact sur le public parce que j'ai vu comment ils ont réagi. ñu gis ni bi nga bi la musique sénégalaise bi ràññee bu baax a baax yàggul mais. instant bii nii loo génnee gars yi dañ koy song ba ci li nga mujjee génnee gars yi sax léegi bu ñuy déclaré xam nga rek seen seen noon noonu lañ koy jaarale donc gars yi sénégalais nu ñu jëlee euh, sa dernière chanson bi nan nga ko gisee. mais je avec beaucoup beaucoup de plaisir parce que artiste bu nekk bu nekkee si ay projet di ko génnee lan la gën a lan mooy son plus grand désir c'est que public bi recevoir ko public bi. accepté ko ba pare apprécier li mu def donc kontaan rek laa si mën. donc clip bi bëgg naa xam kan moo choisir Ziggy euh, c'est le réalisateur parce que jëkkëru jaamul nga sàcc déjà maa ngi nii. ah euh, ma ci wax. ah dégg Amira ma lay tendance de. <laughs> muñal rek muñal garaawul. <laughs> waaw kon baax na donc euh, lan ngay wax sénégalais yi lan ngay wax sa fansi yi lay seetaan. bon man je remercie énormément le public sénégalais ak euh, de la diaspora internationale tamit et je vous dis restez connectés parce qu'il y a des belles choses qui arrivent bientôt incha allah. jaman gis nañ yee ñaar macha allah jot ngeen def collaboration tey aussi mu ñëw gañewaat beneen euh, prix muy prix Futuring bi nga xam ne ne moom la def ak Nix donc loo koy wax. félicitations parce que Jaman bi muy liggéey si projet bi j'étais là euh, gis naa effort yi mu ci def gis naa euh, engagement bi mu ci am donc ce n'est que du mérite encore félicitations à Jaman et à Nix aussi merci beaucoup